rabbi aouzu bika min hamazati saatin wa aouzu bika rabbi an yahduruun bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallama taslima iqra wa rabbuka al akram aouzu billahi min ashaytani في كل موضع وفي الأوطان أعوذ بالله من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان قراءة القرآن أمن من لعين ومن شقاوة ومن مكر المعين قراءة القرآن أمر من لعين ومن شقاوة ومن مكر المعين قراءة القرآن أمن من لعين wa min shaqaawatin wa min makril mu'in rabbiha abdun yaqra'u alqur'ana walil jinaani laa yura zam'ana inna tilawata alkitabi muluku wa huwa liman yabtaghi alnajaatu fuluku inna tilawata alkitabi muluku wa huwa liman yabqi alnajaata fuluku wa jooqaari alkitabi naadira يوم الجزاء للجميل ناظرا ربح الذي يتلو الكتاب ربح من يدوم ذا سعادة مع لمن بركة القرآن فقد زنا قارئ يفوز حيث عنا بركة الكتاب تحمل قارئا مما من البلاء تكون طارئا كنز الكتاب ليس يفنى أبدا قارئ ليس يلاقيك بدا إلى سوى القارئ يقصد اللعين يسوقه لغيره ترد المعين لقارئ الكتاب عند المنزل في السر والعلن خير النزل إلى الجنان دون ريب الكتاب يقود من لازمه بلا عتاب كتاب ربي إنك الكتاب wa fiika qaala zaalika alkitaabu ribxu lazi yatluuka yaa qur'aanu ribxu fatan yaxbituhu alaqraanu man bika laaza xaafahu saytaanu wasarahu almawdiu wal awtaanu subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuuna wa salaamun ala almursaliina walhamdu lillahi rabbil aalamiin. bismillahi rahmaani rahiim. Baay Góora Faal jógatil sargal gi dem Makka ñëw. jël ndam lu rëy la fa woon andil ko waa Sénégal Baye Gora Fall jógatil sargal ki dem Màkka ñëw jël ndam lu rëy la fa woon andil ko waa Sénégal alhamdulillahi alhamdulillahi am na ndam lu rëy Sénégal ci alquran Muhammad yow yaa sagal Sénégal concours bu mag nga demoon ay réew yu takku ñëwoon yaa gàddu ndam la fa woon andil ko waa Sénégal njukkal la war na ci man sargal la war na ci man way kañ la war na ma war kuy bind way Sénégal nun Sénégal alxuraan xam nañ ni mooy sunu cër moom rekk lañ di jongantee ndam li ñëw Sénégal waa daara saa bu ñu dem concours yi kenn du ñu yëg te buñ demee jël fa ndam andil ko waa Sénégal tey jot na suñ jiitu réew ak nguur gi ges sunu ndax suñ raaye saa su jege daaraa demal Sénégal ma Mahmoud Hay Mahmoud Gaye na nga wéy wér gudd fan barkeb sëriñ bi waral quraanu sax Sénégal Mahmoudou Gaye na nga wéy wéer gunge la gudd fan barkeb sëriñ bi waral quraanu sax Sénégal wasalaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum wa rahmatulah sëriñ Abdou Samad ak mbokk yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar leen balu àq leen bal àq di wax ne bëgg nañu bu baax a baax ci jataay bi ndax jataay boo xam ne da nga koo jox Cheikh Mouhamadul Mountakha jóge fa joxaatoo ko kenn di jox ko sëñ Abdou Samad loolu day wane sëñ Abdou Samad lu baax ñor lim ko ñor ndax ba ñu fa jógee bu ñu jaaraatoon ci keneen wala ci feneen ngir nu mel nii itam mu baax waaye bañ jógee ci mbégteem sëñ Muntaxa mu fii rek lañ ko teg te mbir mi li ci gën a am solo mooy dañoo dem sëñ Muntaxa ziyaar ko sëñ Muntaxa ñu mu def nii jàng ba pare biñ ne bay tàggoo ba dara desut sëñ Muntaxa ne ko jàngalaat ma Fatiha. mu jàngaat faate ci càkkutéefu sëñ Mouhamadul Mountakha nga xam ne kon loolu day wane ne doyulut ci njàng ma bëgg-bëggam la waaye nag ñu ngi lay nuyu ci turu sëriñ Basiru Anta Ñang ñi xalifatu Cheikh Ibrahim borom Daaru Mooti ndax bi may ñëw ànd ak bokk yi xale bi wax na ma ne boo demee neel sëñ Mountakha ñi ngi koy gën a dénk xale bi di feddali ak taalibeem ci moom di la nuyu ci turu sëñ Basiru moom sëñ Abdul Xuddus ndax moom it jox na ma ay kàddu ne ma na nga ko jox sëñ Mouhamadul taxa kon ñu ngi lay nuyu ci turu ñooñu dina nuyu ci turu famille bi ak turu mboolem sëñ daara yëpp di wax ne sunu borom lam doon la sëñ Tuubaa doon wax ne suñu borom da ko wax ne ko dafa waxi boromam ne ko malaktanil Qur'an tamlikan yadum loola day fes saa su ne day feeñ saa ne ngir na xale bii de biñ koy lijjanti Malaisie la la la waroon dem waaye sunu borom nag moom bu namee mbir moo xam fa mu koy jaarale bañ demee ba Malaisie ji taxaw. xam naa mbir ma soppiku ca suuf maag papaam ji sonn nañ ci lool doon ko lijjanti waaye yàlla dogal loola sottiwut ndax nam demee ah ñu ne ñu daal ñaari barab fi mën a am Koweït wala Arabie Saoudite ànd ak ki doon jàngal yàlla dogal na itam xëy na la tax ñu tànnaloon ñu Arabie Saoudite xam nañ ne Arabie Saoudite moom li ngone yi di wax muus ñeex moo fa xew ndax fa alquran wàcc langu arab wàcc fa ñoo am xuruful maxaarij mën a tajwid nga xam ñoom dañ ab sénégalais bu jógee fii bi nga juddoo yàggul ñu yóbbu la fa boo jëleen cinquième sax di jàmbaar waaye yàlla sans borom ak jëmmi sëriñ Tuubaa ji nga xam ne moom moom la yàlla dénke alxuraan moo tax ka demoon Mali si jàmbaar la ndax deuxième la jël waaye moom mi bu fa demoon mën naa am deuxième la jël waaye moom siyaara ji na fa yonante bi sallallahu alayhi wa sallam umra na fa dem na fa ci amaakin muxaddasa ya ba pare wëlbatiku nag jël fa première indil ko sëñ Tuubaa kon tànnuk sëñ Touba rek mooy la am solo te eh, ci biir lijjanti bi ñun demoon nañ sax ba maag papaam ji ñu demoon sax ba ne ah nañ bàyyi te xam ne rek loolu la ci yàlla dogal waaye danañ ci xamee ne sëñ bi doon wax ne man xaraal baaba wala jëwalaj boo fëggee buntu bàyyi rek dana mujj ubbiku loola moo ñu ci dal déggewaat nañ ko ci ak ndimbalul gaañu baax ñi ak seeni ñaan kon sëñ Abdou Samad xale baa ngi nii ah di sa doom di sa bi di sa lépp ñu ngi la koy jébbalaat moom famille bi yëpp di sàkku ci yow ñaan nga nga nga nga nga ñaanal leen lii itam ni ko sëñ Basiru Abdou Khoudous waxe daf maa wax ne ma boo demee na nga wax sëñ Muntaxa ne ko na dolli ñaan ay kemam bari loolu mooy ab yóbbanteem wax nañ ko sëñ Muntaxa itam ah Cheikh Mamadou Basir itam la ma waxoon mooy daf ne ma boo demee neel sëñ Muntaxa ne ko dénk nañ ko njaboot gépp dénk ko xale bi na ko ñaanal bañ fa jógee nag ceew mi la jaar kon yow itam ñi ngi lay gën a bàyyiloo xel loolu di la ko gën a dénk di am occasion nag di la sant di la féliciter ci sag bëgg lu baax di la topp di xam lu bu baax a baax say intervention yi ci lu baax ci mbirum daara ak lu ci aju kon sëñ bi ñu ngi lay sant di la ñaanal yàlla sans borom mu yokk sa fan yokk sa wér xale bi dafa am doon deman doon jongante moom moo jël première moom jëlal ko Sénégal gépp am na réew mu ca topp ñu koy wax Mali euh, Bangladesh moom itam ba ca sumali jël troisième nga xam ne cinq premières yi daal ñoom lañ tànn te cinq premières yi Sénégal la moom mii di Mouhamed gay génn jëlal ko senegal gépp loolu nag boobaa du hasard ndax euh, ni ko sëriñ bi waxee woon rek sëriñ moom sans borom la liggéeyal ba mu yëkkati téere bi teg ko ci loxoom. iqra wa rabbukal akram bii nga doon jàng <laughs> leeral na ci lu bari kon nañu gën a jàppaat sëriñ bi te xam ne sëriñ bi mooy fi ne sëriñ bay sëriñ bi sëriñ bay sëriñ bi jërëjëf Mbacke wasalaamaaleykum wa rahmatulah. rahmaani rahim maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew mépp di jiital ci nuyoo bi kilifa ak jotaay bi Cheikh Abdou Samad di wax ne inna allazina yatluuna kitaaballahi wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuur yaakaar naa ku ñëw ci jotaay bi ñu ne fii fan la ñu ne pencum sëñ Abdou Samad eh, moom sëñ Souhaïbou lu ñu fiy waxtaanee ci mbirum alkuraan ak di ko fi bégee jàpp naa ne du doon betteel ci kenn te xëy na euh, sama sama sama moroom yi mën naa am dund dund nañ ak way juróom di suñu ay at yu at yu néew waaye ñu ñuy féete suuf ci ay at fii nga xam ne xëy na suñu champs bu dégg rek lañ am ci seen nopp bu ñëwee ci jotaay bu mel nii li seen i bët di tege. danañ ca mën a tegtaloo ba mën a xam jëmm jooja mooy kan waaw te loolu liñ ci joxe misaal rek mooy la borom téere boobee doon wax ne man qaasa ma lam yarahu bi ma yara araahu ma yaddunu ilayhi maana a li la soree sori ba sa bët tegewu ca xamoo na mel soo ko nattee ci li la jege nga xam ko rek xam la la sori lan la fonkeel gii daf ko doon mag nettali na ma ne ma Euh, sëñ Abdou Lahad jamono yi mu daan ñëw mu daan ñëw ci kër sëñ Souhaïbou bu léeg-léeg di ko fa seet si su ma saana ñëw ba gan ñi ñëw di nuyoo bañ jàmmante mu laaj ko ana gone lum lu mu ko mën a wax lu dul dañoo nekk ci nangam da leen di woo ñu ñëw waaye bu nekkoon ñoo ngi ca mbind ma wala ñoo ngi ca téere mu ne bàyyil maa leen fekk mm-hmm. bu nekk nekkee ci mbindum kaamil ma wala ñu nekk ca. leneen lu lu xaw a xeetoog loolu suñu yëpp laa dinaan suñu son bàyyi leen bu ñu dagg liggéey ba man maa leen di fekk hmm. ah, kon fonk alxuraan ak ak ak sopp koog eh, eh, fonk ñooñam ndoona la ci ñoom eh, laataa sax ñuy àgg ci ci suñ kilifa gi nga xam ne alxuraan moom alma bay yi nga doon jàng léegi sëñ bi maa ngi jéglu bu baax bi sëñ bi sëñ bi sëñ Ibra Gueye di jàng xasida gi day mel ne bayit bu mu wax rek nga yaakaar ne wii bu ko dàq du am waaye bu waxee ba ci topp rek da ngay xam ne lii borom dëkk bii di wax lii ak njabootam nii rek lañ mën a mel ak njabootam nii rek lañ mel qiraatul qur'ani min la'in wa min shaqawatin wa min makril mu'in nee na jàng alquran eh, eh, ki koy def day am xel mu dal ci ne seytaane du ko mënal dara al amnu mooy xel mu dal day am xel mu dal ci tamit ne ak saqaawa du ko jege fenn te seytaane du ko mënal dara wax it ne bépp jàmm boo xam ne yaa ngi jàng alquran bépp jaam boo xam ne mi ngi mi ngi saxal jàng alquran dees ko gis mukk aw maram kenn du ko gis fenn wax ne jàng alquran ak nguur la <laughs> te ak mucc la ci koo xam ne dangay ngay sàkkoo mucc ba mel mucc ba mel ne gaalug gaalug gaalug Seydina Nuuhin ga mm. ñi duggoon nañ mucce mm. kii jàng alxuraan noonu lay mucce ci ci mboolem li muy ragal mm. mm-hmm. mu ne xar kanam bu jàngkatu bu alxuraan day leer naññ bu yomal xiyaamee mm-hmm. ne bénéfice kii mooy bénéfice koo xam ne ak ak texe lay am jamono bu ne daal di wax ne barkeb alxuraan tamit kawe njort te ki koy jàng fu mën a jëm day texe mën a jëm rek day texe barkeb alxuraan day ar ki koy jàng di ko musal ci balaa yi nga xam ne day wàcc ah, xasida gépp di ay kimaan yoo xam ne xam ngeen ne ba ki koy wax nii njabootam nii rek lañ mën a mel xam naa kàddu yi dama bett may jéglu bu baax sëriñ bi